Votre affilé du jour vous est offert par Serine Mustapha Djen Kamal et l'ensemble du cabinet Kamal. Vous pouvez le contacter au numéro suivant 77 161 50 80 ou le 76 575 60 55. mbokki jullit yi bu ñu nekk seen xel dem ci nafila tey la juróom ñaareelu guddi ñu fa yéene julli juróom benn rakka rakka bu ci nekk fatiha suratul kafiroon juróom ñaari yoon suratul ixlaas juróom ñaari yoon sëriñ bi nee na képp ku ko julli arab fu ca nekk des na ko ca bindal ak yiw dina mel ni ku junniy dinaara te lu mu ci ñaan yàlla dina ko nangu des na ko ca bindal itam tuyaaba ju toll ni bisub àdduna yépp araf fu ci nekk des na ko ca tabaxal kër gu mag ca aljana képp ku ci bëgg am lu la leer nga dem yërtule solution bu mbàkke boobu di xooratul ay ni